déglu ci seen euh, site internet Sénégal 7 euh, ñi ngi ak ki nga xam ne rek mooy euh, Gora ci regroupement des transports routiers du Sénégal tey nag mu nekk bés boo xamante ni ji bés bu xaw a doy waar la ci li nga xam ne rek mooy dem beeg dikk bi monsieur Gora Xuma ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di nuyu di nuyu askanu. Euh, Sénégal yëpp di wax ci turu cadre unitaire des syndicats des du Sénégal. Sénégal mhm. euh, tey gis nañ ñu ngeen paralyser li nga xam ne mooy système dem beeg dikk bi euh, mën nañoo wax lan moo ko sabab ak lan ngeen di revendiquer. waaw li ko sabab day mooy dañoo def préavis ah, amul waxtaan bu am suñu diggante ñu ko ñu ngi ko seqal ba bis bi jot démb ci minuit ñu soog a taxawloo oto yépp nag muy taxi ba ba ci bus ba ba ci benn bi ba ci gros porteur ba yëpp taxaw da ñëpp taxaw képp koo xam ne yaa bokk ci transport hydrocarbures ñëpp taxaw pour que vraiment ñu régler problème transport mu jeex benn yoon loolu moo waral tey ñuy taxaw. Mhm. Euh, mais loolu moo waral ngeen di taxaw mais mën ngeen di dikk ci point yi nga xam ni moom ngeen di revendiquer ngir euh, am maanaam gain de cause. waaw xam point yooyu nag dañuy moytu comme kenn ku nekk cadre la kenn ku nekk da am ci lu tax nga gërëw loo xam ne buñ bu ma ko tuddul te bu ma tuddul sa sa point boobu mën ngaa jàpp ne yow sa point boobu dañ ko négligé loolu lañ ciy Mm. moom booy dañoo bari te mënuñoo liir lépp di ko wax dañuy jàpp ne amul benn point bu ëpp moromam solo kon point yëpp am importance te ñi ko moom xam nañ ko te bëgguñu tudd yii point bàyyi mm-hmm. ci loolu dañ doon faral di nemmeeku bu ngeen di grève da ngeen di wax carburant dafa seer euh, li ngeen ni euh, maanaam tali yi baaxul bi yoon xanaa mën ngeen ci dund ñaar wala ñett sax waaw benn laa ci mën a génne boo xam ne bi moom yitteel na ñëpp mm-hmm. muy wàllu tracasserie suñu diggante ñun yi Mm. ndax dañoo wax ne gouvernement bi si tey na arrêté attestation attestation yi ñuy daggal nit ñi ay këyit dinañ ko jox muy police gendarmerie nañ arrêté attestation yi te bépp si boo xam ne def nga d' mu def ci keesu état dem mu dem ñun loolu lañ ci exigé loolu lañ ci exigé te wàññi poste de contrôle puisque contrôle yi ñuy def nii ay postes yoo xam ne sax dañuy firante dañoo bokk lenn lu def kon point boobu ci junni point ñu am mën a tudd benn point boo xam ne bii rek ñëpp bokkoon ko wante dékkuwul point boobu rek moo ñu métti. kon daal suñu jàppee ni da ngeen bëgg a moderniser secteur bi ba lépp lu ngeen di joxeeti mu bàyyi ko ci chauffeur yi muy dem directement ci trésor ni euh, mu tëddee. trésor dama ne lépp infraction boo xam ne bii hmm. ñu ko moo xam infraction euh, bu réalité la dañuy wax ne attestation bu jëkk da nga ñëw ci ndawal buur mu jàpp lan la am nga infraction sangam nga ne ko daggal ma du si mun a aw ma du si mën a jox attestation attestation yooyu wax nañ police bu mu amati arrestation gendarmerie bu mu amati arrestation kuñ jàpp léegi nañ indi mooy bu leen neexoon fii ak ngoon ñu indi benn numéro boo xam ne bii ku bëgg a fay fa ngay fayee kenn ku ne am jàmm. Mhm. waaw. loolu tamit eh, est-ce que si daar daar daar rek dina mën a nekk loolu dafa dafa laaj. loolu bañ ko dalee wax mën na at. ci mhm. yow nañ a ak état du Sénégal depuis décembre 31 décembre. buñ mhm. le premier janvier 2021 bii. ba léegi dara amagut. rappel la rappel la. ah rappel loolu tey la. janvier lañ ko signé woon ba léegi ba léegi dara lañ ci deful dara. Hmm. dara ba léegi attestation yaa ngi fi ba léegi awurus yaa ngi fi ba léegi joxe xaalis ngi fi te loolu la ñu doyal sëg dañoo doyal ci police ak ñun gendarmerie ñun di werante di yàqante dara loolu la ñu arrêté dama ne. Sénégal ku demee infraction bu la mën a baal baal la bu ñu mënul baal fa nga taxaw nga fay jël sa portable nga fay mu génn dem loolu moo ñu loolu lañ bëgg. Hmm. mais mais mais loolu tamit am na beneen jafe-jafe euh, monsieur Xuma xam nga tey chauffeur yëpp ñu ñoo am euh, maanaam euh, li nga xam ne rek mooy plateforme yooyu pour mën a toog koo xam ne ji da nga naa jël sa orange money envoyé mën na leen. am loolu loolu loolu loolu dama ne. Hmm. kenn ku nekk bi laa la wax. Hmm. nga am say moyen di la neex loolu moom lay moom. Hmm, waaye ñàkk ñàkk ne a def transfert d'argent ko def. loolu moom du am jàng amul dara mu d' accord léegi mën ngeen ñu wax euh, maanaam préavis de grève bi euh, ñaati fan kañ ngeen ko fas a dakkal. non ñun amul luñ ko àpp de ci dépendre rek la balle dans la dos de l' état gouvernement bi daal mën naa am sax tey jii bu ñu waxtaanee ak ñun bu juboo ah mën naa jeex mën naa dem ñaari fan mën naa def weer mën naa def ci ñoom dépendre rek ak ci boobu mën na faa dem mais dépendre ci ñaari fan yu waaye de dañ ne suñuy problème nañ ko réglé ñu bàyyi grève bu ñu ko réglé duñ bàyyi grève bi loolu la ñu wax. waaw mais mais xuma est-ce que sóor ngeen tamit ñi nga xam ne ay boroomi yi njaboot lañu di di di góorgóorlu yor seen daama. ñooñu bu ñu gërëm wala at wala weer. ñun demuñu gërëw. pour sonal population demuñu gërëw pour bési kooku réew mi Sénégal ñun dañu doon gërëw pour. Sénégal set pour régler suñu problème ngay xelal askan wi nga xam ni ñooy xëy di liggéey te fi mu toll nii gisuñu fenn fu ñu daal. ci gërëw daal lañ nekk. gërëw nag ci nekk ñooy soxla oto yooyu ñoo war a xam ne gërëw moo am ñu toog seen kër ba gërëw bi jàll